su ma amee conseil bu may jox entraîneur bii di Philippe kàddu yi lay doon ànduma ci ñàkk euh, performance bi Barcelone am digganteem ak Monaco si naa euh, fii nga xam ni foofu la ñu war a footballé ab final suba ñetti kàddu yooyu di kàdduy Xavi kàdduy kii nga xam ni mooy Gérard Piqué ak kàdduy Kylian Mbappé loolu lépp di tënkum xibaar yu ñu leen andil ci digg bëccëg ci kàddu gi seen seen xarit Aladji Malick TV ma gërëm leen sant leen ànd beeg moom am na solo yàlla na jëm kanam ci information yi wér te wóor sama mbokki baykat yi bégg naa leen kontaan ci yéen tool yi bu mu booy benn yoon ñu del si fii nag euh, ci suñu studio commencé ko nag kii nga xam ne nag mooy euh, Arabie Saoudite bala noo agsi ci agsi Kylian Mbappé Arabie Saoudi Kylian mbappe wala boog ci Junior gaa ñi dañ ko doon jongoro fi mu toll nii nag tas naa match bi man tey it match ba sax yaakaar naa ne tas na waaye nag dafa def jëf ju rafet moom Vinicius Junior un milliard d'euros lu musta am ci wàllu footbal ñu proposé ko mu lànk ba pare yokk contrat mag Real Madrid contrat ba mu dëxëñoon ba tey loolee ba léegi nii gën nañ koo jëmmal leer na naa ñi 2027 la gone gi di jeexal agsi na ndànk dox ndànk dugg si fële nga xam ne daanaka moo nekk fi ñuy footballé final bu mucc ayib bi nga xam ne moo nekk diggante Real Madrid ak équipe bi la nga xam ni moo nekk Atlanta match boobee du yomb benn yoon suba jàmm la waaye gars yi waa kër gu mag ñu ngi leen noonu wàcc nañ seenu papanaaw euh, quelques séquences yoo ñu am ci kii di Kylian Mbappé ak yi gaayam Mbappé ngoog wàcc ndànk nag ci aéroport euh, takk ay noir bande yoo xam ne mëntatee gars yi xàmmee ko gars yi foo mën di dugg danañ la xàmmee waaye ponkal mi euh, futur ballon ak ki nga xam ne mooy Vinicius Junior Bellingham moomu ngeen gis ko tamit mu coppati bande xam nga mbégteem Antonio Rudiger bokkoon na ci li nga xam ne daanaka mooy teewaay bu mucc ay bu am solo gaa yi kii nag yéen ñi ko xamul mi ngi tudd Gérard Piqué international espagnol la def na lu ne Barcelone tef yu ndaw yi nag maam ñi nga xam ni dañuy door a xam Barcelone duñ ko miin bu baax a baax ndax jamono jooju foofu la Messi ne woon ak André Iniesta Xavi di ko toj moo téye woon axe bi mais nag daanaka tànk yi moom moom yaali ko lu yomboon la ndax xadar jim doon demee moo ko mayoon sens moom mii nag dafa yebbi ay kàddu àndul ci manque de performance bi Barcelone def ak ñàkk gi nga xam ne ñàkk na ko digganteem ak Monaco ci gàttal daal Gérard Piqué avertise na kii di Philippe xiinim xaana gi na jeex Barcelone meilleur la ñuy xaar waaye nag Xavi moom wax dëgg yàlla kàddu yi mu yëkkati yu rafet la kàddu yi mu yëkkati mooy kàddu kilifa Xavi mooy wax kaddu ya benn la mooy moom mii nga xam ne mooy Hansi Flick ak Deco ki yor entraîneur bi directeur sportif maa ngi wax ak kile euh, di ki nga xam ne nag mooy yor équipe bi di filik maanaam patience mooy moo bi nga xam ni Xavi répété na ko te moo boobu dong man ci laa yem mooy ak lu man di am ak lu man di dikk maanaam liggéeyal te ànd ak maanaam taaxeerlu gu mat sëkk ndax taaxeerlu gi mooy tooba saxal ma sulli loolee mënta nekk ci équipe bii di Barcelone taaxeerlu gi mën naa ca ëmbaale footballkat yu xarañ nga yam te déggoogunu pour ñu mën a déggoo mayonnaise bi di bati ba mu dégg jàmm nga mën suy poobar loolee di nga am patience bu mat sëkk kon patience en sulfilique